métti na tey ñu doxantu fekk fi ñii di dëkkandoom wala ñii di ay waa këram fas yéene waxtaan ak moom ci yëf yi la demee. papa ñu ngi leen ñu ngi leen di fay. tur bi ak sant bi. Daouda Thiam laa tudd. Daouda Thiam papa euh, way jur nga ci Pape Diaw waaw man de dëkkandoom laa ndax kër gi bi muy bëggee kër man maa ko fexe ba ñu jaay ko pàkk bi ci man la ñëwoon loo ma kër ma woon ko pàkk bi mu ne bëgg na ko. ma ànd ak moom ci chef de quartier bi mu fay ko ñu waxaale bu jubóo ak mu doon waxaale mu fay ko loolu moom ci sama loxo la jaar kon xam naa ko bu baax. papa ñu mel ni euh, Pape Diaw ay dëkkandoo yaa ngeen ba benn fan mujjee mel ni doom ci yow bi nga yégee dee bi nan la def. waaw ma de ñu ma fekk ci jàkk ja xam nga ñun dañoo baaxoo bu ñu jullee timis dañ fay toog di waxtaan ci l'islam di joxalante ay ay kàddu ci yoonu l'islam sariatul islam ba julli gee buñ jullee gee nag door a ñibbisi waaye man démb moom jotuma faa jullee gee ndax buñ jullee timis ba génn rek bay waaj a tàmbali waxtaan bi ci la ñu ma woo ma door a ñëw fii laa jullee gee ci sama kër demb na ma jaas dañ ko rey ci kër ga ci ci néegam euh, gi nag ci néegam moom lu ma euh, bettale waaye na ma yàlla baal betti ndax dafay wéetan moom rek moo fi daan ne kër gi rëy rëy moom rek moo fi daan ne mas naa ko wax ne ko yow sa wéetaay wii man neexuma dara wax dëgg yàlla xanaa loolu la yàlla dogaloon loolu waaye nag moom rek moo fi daan nekk moom xam nag lu mu jotee ki nga xam ne moo ko def loolu waaw xam naa ne moom tooñ na ko ci li ma xam tooñ na ko ndax fekk na ci këram rey ko te wóor na ma ne ko lu jaar mu ko moom loolu moom moom xam naa ko moom. biñ la waxee rey bi mu nekk lu tiis loolu est-ce que dem nga xool ban anam lañ ko reyee ak nan nan. waaw dem naa fa dem naa ba tiim ko kay waaye rey dafa ñaaw ñaaw goo xam ne ñu bari sax ñu ko mën a gis. ndax jam yi daa daa bari te métti xam naa dañ ko bett moom ndax daa mel ni du kenn rek moo ko def loolu moom boo ko gisee rek da nga xam ne xam naa bu euh, li ñu lijjanti bu bu génnee jam-jam ya maanaam danañu wax ne nangam la dina bari loolu moom daa ma leer. Mm. ñu ngi dégg ci ay wax ñu daan yamul ci ay jam rek mais dañ koo rendi que ci ay jam-jam rek la yam bi ñuy wax ci rab. non non rendi ñu ko man dem naa ba tiim ko dañ ko jam rek jam nañ ko fa ne nag dañ ko fa ne waaye kenn rendi ko. man nag à peu près xam naa ne xam naa ci lu mot ñeent moom waaw ñeent ba juróom daal te te gisuma lépp ndax damaa dem tiim ko rek xam ne kii moom liñ ko def métti na. yaa wax sa biir wax naan dafay faral di di wéet lan moo waral wéetaay boobu moom. waaw xam nga kër gi moom moo ko jënd moo ko moom te poulailler la ko def benn néeg la fi def euh, ñi nga xam ne ñooy luye yenn saa yi pour def fi ay ginaar bëccëg lañ fiy nekk liñ fi ñëw guddi du bari. moom rek nekk mu ne ci kër gi moom moo fi fanaan loolu moom lu ma métti woon la lu ma jaaxalan la hmm. ndax wéetaay bi moom dafa métti lool kër gi moo ko jëndoon ci xaalisu boppam tabax ko ba mu ko tabaxee def si benn pulaay kese ak benn néeg lan moo waroon def si benn pulaay benn néeg rek waaw xam nga loolu moom hmm, moom lay neex mu def ko moom bu ko jëndee itam pulaay rek la wax ne la koy def pulaay la ko def itam pulaay bi nag wax dëgg yàlla ñu bari li yenn saa dañ koy luye mooy ku mu xam ak ku xamul dañuy luye pour yar fi ginaar bu motee ñu dem dem jaay xam naa sax ñu bari xamu leen ñu bari xamu leen xamut fu ñu dëkk loolu mooy problème bi loolu mooy problème bi. yooyu muy ginaar yi mu am na ci beneen liggéey bu mu doon yëngatu man xaw ma ko parce que man dawuma ma ko laaj dara waaye te itam mosuma wax ne nangam lay liggéey lu dul lu dul lu luye poulailler jënd kër gi luye def ko. lu léegi moom mooy def fii ay cuuj ñeneen luyee li ci des loolu daal laa ko xamal waaye xamuma ko beneen liggéey déedéet. ci ñi muy àndandool wala ñi muy fréquenté déggoo kenn ne da xam ku mu ci jotee loon wala am ko ci doon tëkk wala. ñooñu nag xaw ma ci kenn waaye eh, yaakaar naa yaakaar naa nag xam naa ne du ñàkk koo xam ne xëy na da ko eh, seqal dara luñ seq nag moom xam ko dëgg yàlla waaye daa mel ni ci ñooñu daal ci ñooñu la seqal xam nga li ñu seq nekk ba xam ne ci la lii ci la lii sosoo ci sama xalaat daal ci waaye moom man nag xaw ma ci kenn nag moom waaw ndax man damay génn rek dem ñëwaat ñoom ñooy dugg ak génn man xaw ma ci mosuma cee xam kenn nag moom rek laa ci xam. bi li amee est-ce que woo ngeen waa këram seen waa seen ay famille seen waa famille ci mel ni ay papaam ak yaayam pour annoncer leen yaayam ci boppam a yàlla moo tax sax ñu xam ne dee na ndax daa daa ñëw di ko seet si da ko woo woo téléphone wuyu ko. mu ànd doom ji mu am doom ji ndaw ñëw ci buntu kër bi fëgg fëgg kenn kenn wuyuwul ba mu woo ay nit kenn ñëw yéeg dem ci kaw ubbi fekk ñu jam ko mu wax mu yaay ji doon ko yëg yaay ji doon xam ne dafa dee loolu moom xam ne dafa dee waxul woon ne am na ku a joteel wala am ko doon tëkkoo ku mel déedéet loolu moom ah, xaw ma wax na ko fii yem déedéet waaye ma dégg moom wax ko maanaam am na wax na ko hmm, mën naa am tam xamu ci dara léegi moom ginnaaw bi mu làkkoo poulailler bi mu fi bàyyi léegi ñu koy def am na ñu ko denk wala poulailler baa ngi fi des noonu. waaw ay ay ay magam ak ak i mbokkam ñoom la ko dégg fi mu ne sax am na ci jëfi ne moom la ñuy wax naa euh, pour ma waxaale ko ne mbokk yi nañu ñëw jël si ko wala wala ñu ñëw di ko toppatoo ndax ay bàyyi ma la ñu te ay bakkan la ñu yor bu ñu leen bàyyee noonu dañuy dee te dee amul benn njëriñ bu ñu mënee am ñoo xam ne dañuy ñëw di ko toppatoo itam di ci wàññi dara bu ci fekkee am nañ ci ndigal loolu daal moom bëgg nañu ñu ñu yëkk ba ñëw di toppatoo ginaar yi parce que ay bakkan la ñuy yor te nit nit ñi ñoo leen di toppatoo. quartier bi ngeen dëkk di Daaru Salaam 6 est que am na sécurité bi war. déedéet amu ko man mii di wax yow bi may liggéey su ma masaa wàcc guddi ba yor sama oto ca teel ba laay gaare fi sipeer yi gaare su ma guddee waa damay fay ñaari apprenti ñu encadré ma ba mu dugg sama buntu kër ndax dañu dañ daa dogale ci yoon bi boobu nag fii yëpp amul kër. boobu nag néew na waaye eh, saay saay yi dañ ci daan dogale dogale nañ fi ay nit ba tey ñu bari xam naa leen waaw waaw ba fii mu nekk xam naa ne loolu jóg fi daa yokk loolu nag moom buñ la ci dimbali woon dana baax ndax sécurité moom am am amu fi moom eh, xam naa tane tuuti bi bi police ñëwee police bi ñëwee jege fii eh, xam naa wàññi ko tuuti waaye ba léegi sécurité amu amu fi moom ndax ndax lamp yi bariwul mbedd yi amul lamp mbedd yu néew ñoo ci am lamp boo seenee lamp yi tàkk sax lamp buntu kër lay doon loolu war nañ tee dimbali ak ak sécurité bu doy daal. Euh, rey bu mel nii yéen a ngi ko fiy doog am wala yàgg na fi am. waaw mi ngi fiy door am nag ñun ban fi ñëwee ba léegi mi ngi fiy man maa ngi koy door a gis bokk waaw kenn mosu fekk nit ci néegam rey ko moom loolu moom mosu am moom ndax xam naa dëkk bi ñi ma fi jiitu bariwul waaw ñu fi jiitu ndax 91 1991 laa fi ñëwoon ba léegi booba yëpp kenn dëkku fi ñun néew ñoo fi dëkk kon ñu ñu bari fi lañ ma fekk maa ngi soxna si sama soxnaa ngi nii déedéet mosu fee am booba ba léegi. da ngeen fi faral di dégg ay agression yu métti. waaw ay dogale ci yoon yee dundu nga ay portable ak yooyu moom am na fi ba taa yi moom ba léegi jógu fi sax loolu moom war nañu cee dimbali moom ndax lamp yi bëriwul comme ni ma ko wax léegi lamp lamp boobu seen ñaari lamp buntu kër la kon loolu bu ñu amoon lamp yu doy eh, police di ci di fi ñëw loolu man mën na am wàññi loolu moom am na ci yaakaar lan moom manqué na fi lool eh, ay lamp ak police yu bëri di fi ñëw loolu moom bu ñu ko amoon baax lool. kii di Pape Diaw ban dëkkin la dëkkoon ak yéen ban façon. waaw xanaa am yar am teggin rek mu ngi ko sonn jàmbaar la te tabe gis nga xale xelew koñ bi bu ma saa génn dañ koy topp dañuy toppee mbër mu ñu ànd ak ñoom a ba ci bitig bi kenn ku ne mu jëndal la dara dañ daan yàkkamti mu génn dañ daan toog ci buntu kër gi pour xaar ko mu génn ko tabe la ku baax la ku am yar ko am teggin la mosu fee jotee kenn nag bet ni moroom moom mosu fee jotee waxtu ma laa mag naan loolu moom lu ma leer nañu la loolu moo mën a waat looy wax état tey ci wàllum sécurité lan lay doon. waaw xanaa ñu dolli ko rek ndax sécurité 100 pour cent moom def nañ mënta am waaye mën naa wàññi ko nag surtout dëkk ci biir dëkk bi nga xam ne euh, dañuy wax ne ci la bokk sécurité sécurité war na fee am loolu moom lu ñu soxla la moom muy ay làmp ak ay police yu doy loolu moom wax dëgg yàlla soxla nañ ko lamp yi mbedd daal soxla nañ ko moom ñu ngi ñaan suñu borom tabaaraka taala ñu bees ñi ñu dimbali na ci bu baax a baax a baax. papa ñu ngi lay jaajëfal bu baax. ok jërëgeen jëf yow li may ñaan nag mooy sunu borom yal na nit leen ba ñu xam ne ñii ñoo def mbir mi loolu lañ ñaan sunu borom ndax ñoom def nañ ko waaye jënd nañ ko loo xam ne du ko jar ndax bu dee xaalis la jaru ko bu dee daraja la jaru ko bu dee matériel la jaru ko ndax sunu borom moo wax ne. man xatala muminan mutaamidan ila jisaw jaanama xaalid ne fiya abadan ku rey ab julit te tey ko waajal sa kër mooy sa war te doo fa jóg mukk xaalid ne fiya abadan la yàlla wax loolu nag buñ ko xamal defe naa lii ñu def liñ ko def te dem liñ ko jënd lu mu mën a doon jaru ko ñoo ngi ñoo ngi ñaan nag yàlla niital na ko niital na ñi ko def ba ñu xam ne ñi ñoo ko def ba ñu teg li ngeen war a teg xam naa moom bakkan bi moom kenn mënu koo kii waaye loolu rek lañ ñaan sunu borom yàlla na leen yàlla niit salaamaaleykum wa rahmatulah. sëñ bi ñu ngi ñu ngi lay ñu ngi lay fay bu baax. Libaas Faye la. Libaas Faye tey ñu nemmeeku fi benn dee ci nuyoo ci turu bi metti loolu ba laal xol. lan nga lan nga doon ci pa kii di Pape Diallo. Pape moom sama waay la woon Dia <clears throat> sama waay la woon sama nit la en plus wallaahi fu ma gis damay nuyu jaama sante moom xam nga waxtaan waxtaan waxu góor yàlla nag parce que moom góor yàlla champion la quoi liggéeykat la kër gi moo ko moom moo ko jënd xaalisam def say ginaaram di yar am na mu liggéey tamit di liggéey billaahi yeesaasa mosoon naa fa dugg maa ko branché canal téléphone bi maa ko naa jaas sa bunt bi doo ko xool noo ko defaree mu ne ma non baas garaawul fii mooy loolu fii kër Baye Fall quoi Baye Fall yëpp fi nañu teew ndax moom dèjà xam nga ni doo mel rek da ngay foog ñëpp noonu lañ mel na la bàyyi buntu bi te saju mu sooñ ko suñu noonu mooy loolu man démb laa jógee entraînement moroom yaayam kii muy woote téléphone mais xam nga yaayam man maanaam kii wu ñu quoi ñeenti wu ñu mais comme rendement ma romb dem ma gis ko maa ngi muy wax téléphone ànd ak benn xale am ak benn tuut tàng moom am na dafa am tout temps quoi mais amul amul kii amul jabar léegi nag après maanaam si doon foofu noonu ma dégg doom ma jaar doomam bi mu naan ko yaay ki dara bañ tijjul mi ngi si biir xam naa yaayam nag ndeysaan xam nga doom nag a sax si xool naa da koy sentir rek mu ñëw du fëgg léegi si laa duggee di sangu si laa songee noonu duggee entraînement sangu ba pare dégg ay yuuxu quoi comprendre fu man xam nga affaire jigéen ay xeex affaire yooyu noonu ma gis femme ma femme dëkk bi tëdd fii di yuuxu bàjjen bu soo ma gisoo muy yuuxu non du yaayam sax mais dëkkandoom nañ quoi parce que moom nu mel si koñ ba gars yi dafa baax dafa baax après si laa génne gis gis sama frère bi Lamine mu taxaw ma ne ko lu xew fii ki lu mu ne ma jaas nañ rendi ma ne ko rendi la wax ma ne dugg si biir mais bu mu duggee ba jaaxar moom non ni ko reyee ñaaw na trop. Mm-hmm. waaw bi ñii naan dañ koo rendi ñii naan dañ jam jam yu bari nan lañ ko rey. xam man moom maanaam dugguma si biir ba tiim ko xam nga policiers yi bu ñëwee def seen liggéey maanaam mun na ñëw xool gisal foofu noonu yow après say faay ak say empreinte affaire yooyu noonu mun na la téye sa def la mandat dépôt def seen def seen enquête ba ñu feeñ léegi après ñun la ñuy sonal ñëpp dama ko bàyyi xel damaa ñëw taxaw si bunt bi xëcc réseau bi gis ko ma gis mu tëddee ba tey sax maanaam jaas day nelaw mais xaw yaa xaw dugal sama bopp ma gis deret bi quoi affaire yooyu noonu ak ak maanaam kanam nu mu ni mais mënu ma ko xoolaat ba nii nelaw ma ba nii naraw ma lekku ma billaahi ay sept heures laa tëdd tuuti yeewaat parce que avant image day des sa bët yi day des sa bët yi parce que nii te saa mooy loolu kenn mënul wax lépp quoi billaahi. moom bu weesoo liggéeyu poulailler bi mu doon def am na beneen liggéey bu mu doon yëngatu bu paa bokkut ak liggéeyu poulailler non non ko si beneen liggéey quoi pour poulailler bi waaw xamuma si beneen liggéey pour poulailler parce ay fan ay fan yu passé yële yàgg na nekkoon na port mm-hmm. nekkoon na dafa liggéey <clears throat> après si la nag. maanaam bu ñu jëndee kër gi moom si la toogee dafa pulaayam di yare ginaar di jaay ah ba pare luwee pulaay yeneen côté yi dafa luwee dafa luwee dafa luwee ay nit ñëw foofu noonu di liggéey mooy loolu te si événement du jugee doo xam la moo tax ñu rek doo xam lan la si événement du jugee tamit maanaam liggéey na te ginaar yi mënoo yor jaay na ko si événement bi doo xam gars yi moo tax ñu rey ko doo maanaam doo mën a xam quoi billaahi xam nga kenn wax lépp. loolu alors euh, mën naa xam Diaz ban genre nit la woon ndax dafa nekkoon nit boo xamante ne ñi dëkk ak moom amoon na fitna en itam euh, bëgg naa ñu xam rek comme yéen yow mi nga xamante ne peut jege woon nga ko ndax euh, déewu la ne dafa am ku mu joteel wala ku mu jàppanteeloon wala dara. non même pas même pas musuma dégg mu ne ma baas kii laa jàppanteel wala kii ak kii non musuma ko dégg. wax dëgg yàlla mosuma dégg jaas nii nii moom kenn xamee ko yooyu sax maanaam si gàttal moo moo tax gars yi mi ko déggee ñëpp la metti ku ko xamul sax maanaam sama kóol bu ma duggee sat yi du gis naa ñoo xam du ma leen xamuñu jaas parce que maanaam affaire moo ñaaw te sooy champion la borom baax la ba ñu metti dañ koy wax moom mu dëggee fii waa gaalam fa la nekk Lac Rose moo jënd fii jëndal seen waa gaal Lac Rose yóbbu leen fa moom mu toog fii nii rien que ndax bañkat la xam nga champion moo mun loolu te xale bu ndaw sama morom la bilaay walaay taalaay koñ bi ñëpp ko seedal loolu ñëpp ñëpp ñëpp ko wax mun a jaar dafa baax dafa baax te instant moom suñu xel dal na quoi a que xam dama ne dal na champion la te borom baax la c'est la première fois lii am fii ay sàcc nii ay yii nii nii mosoon nañu topp sama gaal fii nii sama frère bi sàcc Dakar taa am gis nga fii comme bi maanaam comme si boppam insécurité totale koñ bi amul dara lamb bii dañ ko war a defar fii nii fii mën a leer xam nga ñun moom ay góor na ñun dañuy guddee tëdd man fii su may ñëw fi li laa fi gis am na un jour dama ñëw fi gis ay gars toog fii nii kenn ki di tëb maa wax ak moom mu wàcc daw ci laa duggee xam nga xam nga góor moom da maanaam da ngay guddee tëdd quoi mais koñ bi moom gars yi wanañ si jug trop trop ak bëri na kër yoo xam ne kenn dëggu fi xam nga te te mooy loolu quoi ñu daal affaire yi daal moo loolu métti na te gars yi dañoo war a jug koñ bi jàppale ñu xam ne lii ni xew fii nii bu ñu mu ñaaraat parce koñ moom yàqu na koñ moom yàqu na koo wax mu ne koñ bi lañ rey foofu nit affaire man nit dafay wax téléphone sa naam seen koñ lañ rey nit xam a koñ bi kon yàqu na bilaahi kon te fii nii mooy loolu noonu amul innocent amul loo xamante ne amul maanaam ay ndifooñ ay yooyu non yoon moom na def liggéeyam quoi na topp trop na topp def liggéeyam. quand même tamit euh, yi ñu wax ne bi mbir mi xewee depuis démb yaakaar naa ne presse bi ñu ngi fi woon ba minuit eh, gisuñu fi ñun nemmeekuñ fi benn pété mais yéen ñi nga xamante ne gis tey lu ni mel xew euh, bu ñu waxee mairie yi xam ne ñi nga xamante ñoom ñooy jeunes ak mairie yaakaar naa ne seen xalu euh, dañ ciy jàpp bu baax a baax tey gisuñu ci euh, présence kenn koo xamante ku jege mairie gox ñi nga xamante ne yéen ban jàngat ngeen ci def loolu loolu tamit war nañ ko xoolaat quoi vraiment ko xoolaat parce que xam nga ñu dëgg fii nii ñu dëgg fii amul amul ku mag koo xamante ne maanaam am na cër si dëkk bi gis na nga fi non non moo ta ñu ne fii amul moo tax amuñu jàppale gi nga loolu bu ñu ko amoon sax au moins kooku dinañ taxaw amuñu ko gars a yërëm côté bi ñu yërëm ñu maanaam ñu gëstuñu xool ñu bu baax xool ñu bu baax côté bi dëgg la koñ na mais dafa dangereux parce que man mi di di guddee tëdd xam naa ko bu baax yéeme na trop gars ñu ay làmp mu non non ci réew moom ah na góoman yóbbu nañ ko quoi parce que man maanaam bu ma bu ma ko jëlee réew mi noonu bu ma ko xoolee gis naa daal bopp bi dañ ko muur tamit boo ñëwee sax da ngay sax day naraw parce que comme comme kuy naraw ni mu tëddee noonu la tëddee daal tëdd nii ñu jël kii mbaaj bi muur ko ba nii lii kese mooy feeñ. après ah, su laa xoolee noonu gis ak déret bi affaire yooyu ma dem parce que sama xel mënu ko kii moo loolu xam nga déret nii dafa fort surtout koo xamante ne xam nga wax te dafa jege si yow sa waay la ñoo ànd guddeeg bëccëg ba si maay bu nekk fii nii maanaam moom fa ne ñëw ñëw di reer su ma reeree pare sa jaas moo jël xaalisam fay ko ma ne ko noonu moo wax ba sonn mu fay ko dama booy na nga baax rek dama sa yoon ma dem champion la billaahi moo loolu. mais mais mais si information yi nga xamante ne am nañ ko fi am na ñu ne bi ñu ñëwee dañoo fekk ci biir kër gi ñu gas ko maanaam ñi def ñaawteef bi xëy na bëggoon nañ ko euh, làq làqal wala ñu am fu ñu ko denc yow mi nga xam ne tey dugg nga ci biir kër gi ndax loolu mën nga ko. non non loolu moom man damaa ñëw sànq nii sànq nii maanaam sànq laa ñëw ñu wax ma loolu noonu parce que man bu ma ñëw ba xool ko damaa dem. bu ma ñëwee ba xool kon bi instant yii maanaam bëggatul ma sa teg sama tànk si kon bi parce que mooy loolu quoi su ma ñëwee sama image yooyu day ñëw si man ba nii ba nii sama gaal man fii nii fanaanu ma fi sama benn gaal xarit Malika laa fanaan sànq laa doon ñëw ñëw fii parce que dem naa benn instant koñ bi sax si boppam su ma tegee sama sànq moo loolu damay yóbbu feneen maa ngi doon ñëw nii tey soo maanaam Franc soo ñëwee boo ñëwee si àddee ne la gaa xaw ma dañoo jéem a gas xaw loolu moom fekk ma ma damaa dem man bu ma ba gis ko moom damaa dugg sama néeg jooy ba sonn après si laa soo que instant yii ma quoi waaw waaw affaire moom saa ma suul vraiment affaire yi moom mooy na ko trop trop trop. non gouvernement lu may wax rek lañuy defar fii ay lamp kon di leer naññi kuy dox dox fii vingt bu jotee fu nga génn gis ni sa problème la vingt ñu bëgg na loo xamante ni maanaam day leer suñu xarit yi suñu xale yi mën a génn di foo ñëpp mën a am foo jàpp xam nga boo génnee sa xeet dal boo ñibbi sa xeet dal mais fii la génn man mi ma ñibbi si saa sama xeet du dal parce que comme ni fii nii ba tali ba fële dafa lëndëm yoo xam ne kenn tëkku fa ay garab ñu nekk ay fas ñuy teg fii lu nekk ñun daal moo lu gars yi nañ dafa nañu xool bu baax gësuñu bu baax dafa ñu ay làmp xam nga fii mën a am tuur sécurité sax du moins am tuur sécurité boo xamante ni maanaam suñu xeet dina mën a daal parce que lii nii leçon rek la mais lii rek leçon la si ñëpp ñëpp laa wax nag lépp lii leçon la ko quoi ku mu yeewul ma xam maanaam dootoo yeewatu leçon la te gars yi moom maa leen ñaan ñu def seen liggéey bu baax def seen liggéey bu baax parce que lii moom ñu ko bàyyi mu sedd moom non day yomb trop trop trop parce que lii dafa yomb fii léegi dañ lay fekk ba sa biir néeg sa biir néeg di la rey xamal loolu noonu xam trop dafa bëri fekk ba sa biir néeg di la rey xamal loolu noonu gars ko wax. wallaahi. waaw ah jóge àdduna de xanaa ku baax yaru danañ ko xamee ak daan doole waaw danañ ko xamee fii bëgg xale yi ci kooñ bi bëgg mag ñeek respecté ñëpp ko def jëf ju ñaaw ji amoon nañ ci benn xalaat nan eh, la war mën a doon. ah déedéet benn xalaat moom wax dëgg moom ndax dëggaguñ ci dara. amoo leen kenn kum joteeloon si koñ bi koñ bi wala amoon na moom benn problème. déedéet nag dëgguñu ko de. bu ko def fan lañ jaar ak mur mi ni mu guddee nii ba mën a egg si biir ba def ko def ah xam naa ne dañoo tëb rek ndax miir bi dafa gudd xam naa dañoo tëb rek mhm. waaw boo amoon tey looy dénk gouvernement bi lan lay doon gouvernement bi daal li ma koy denk ñu jàppale ñu jàppale ñu bu baax ci sécurité bi ndax koñ nga amul benn sécurité xoolal fii yëpp ay kër yu kër yu ñuy toj la waaw ci la dugg surtout ñun ñii di xëy fajar man jaakatu jën laa waaw ay 3 heures du laa doon xëy wante bu ñu agressé fii benn xale bu góor fii jamatte ko boobu laa ko bàyyi léegi 5 heures du laay xëy waaw 5 heures du laay xëy ndax loolu kese. waaw ndax itamitoo ay jigéen lañ de te itamitoo suñu jëkkër yi ñoo ñuy gunge te itamitoo sa jëkkër bu la gungee ba di ñib si sa xel mu dal dudal yow mii di dem waaw ñoo lañ ñoo ñu gunge wante suñu xel du dal ndax mën nga ñoo gunge ba di ñib si ñu gëtandu la waaw suñu xel daal du dal waaw man daal di may ñaan président bi fay Faye nañu jàppale ngir yàlla te yàlla tax jàppale ñu moo ñu sécurité dafa ñu potu làmp yi kër yi nga xam ne dañoo toj ñu dindi ko fi xool li ñu fi liggéey moo ñu gënal daal sécurité bi daal lañu bëgg ñun waaw. bi nga commencé ak yéen Amath aussi ne moom mooy mbir ginnaaw bi ñu waxee démb ne guddi ak li nga xamante ne moom mooy sapeur pompier amoon nañ jafe bi ndax ñu ngi naan dafa yàq ba ni mel waaye rek yan xibaar ngeen xam ne amaan ko ci ci yi ma nga nga woon ca ca loxo ca loxo sapeur pompier. waaw booba léegi moom wax dëgg moom ah loolu la xale yi wax fii bu mooy ki ñoo interroger woon suma rakk bi nee ndax ñoom ñoo fi jiitu nee nañ daal bët yi daal dañ ko lii daal waaw boobu ba léegi nag déggaatuñ ci dara waaw comme que yoon a ngi dox euh, liggéeyam ah xanaa ñu sukkandiku foofu rek xaar liñ résultat yi waaw loolu da lañuy xaar nii hmm? ah man de fii laa yaroo waaw fii laa yaroo ci koñ bi wante bu leet dem ba ma su fee am ay agresseur daal dina fi am daal ak sàcc yeeg yooyu wante rey nit mosu fee am tooñ bi wax dañ moom fii laa màggee fii laa amee ca wante mosu fee am waaw yéen nga xamante ne yéen a yor njaboot am na foo dina dox ba yenn ndax fi mu seen fit yi li nga xamante ne yéen a koy gis waaw suñu fit yi moom mosul toog moom wax dëgg moom suñu fit yi mosul toog chaque jour suñu xale yi suñu xale góor yi bu ñu demee ànd ak seen i morom yi dem ngoonali ji bu ñib see man mii damay wax chaque jour di naan yéen heure bi ngeen di dox bàyyi leen ko agresseur dañoo bari ci dëkk bi toog leen bu ngeen demee ba 10 heures nga ñib si wante xam nga xale góor yi waaw dañuy dem seen morom yi teg seeni i di waxtaan ak yooyu waa yaay ban cee taxaw muy autorité yi nga xamante ne ñoo fi nekk parce que sa biir wax léegi yaa ngi wax euh, lën lëndëm bi nga xamante ne mi ngi fi kër yi nga xamante ne da seeni borom dañ fi dëkkoon ba ndox mi nangu ko ñëpp yàqu mais ba tey dafa fees benn ak ay ñax euh, mu mel ne def ko ci ñaxtu fi mën nañ ci làkkatu mais liñ fi gën a nemmeeku nag mooy lëndëm bi surtout dafa lëndëm trop à partir de kenn du gisati kenn ci gox boo xamante ne mu ngi ci digg euh, benn barab daaru ba daaru lan ngay lan yi nga xamante ne ñu ngi fi. man daal autorité yi daal li ma leen di ñaan ñu dimbale ñu rek dimbale ñu ko yàlla tax jàppale ñu surtout monsieur le maire bi nañu jàppale ñu gëstu ñu ndax lii tamit wax metti na ba ci kanam yàlla kër yëpp ay ñax la kër yëpp ay ñax la nañu ci jàppale xool ñu waaw gëstu ndax tamitoo nu mu mënta mel ñun ñoo ko fi teg kon nag daf fa war a ñëw dañoo war a ñëw xool jàppale ñu ndax gis nga depuis ba dem ba tey kenn gisu leen fi waa depuis dem ba tey kenn gisu leen fi dañoo war a ñëw nag jàppale ñu ci loolu ci tabax yeeg yépp waaw yaay itam bëgg balaa ñuy jeexale suñu dernière message ngay ngay lancé itam ñi nga xamante ne ñoom la cri euh, néew bi nekk ci seen loxo jamono ji muy wàllum yoon gis nañ fii ci réew bëri bu ñu wala bu ñu leen faatee dañuy toog un mois deux mois ñu bàyyiwaat ki nga xamante ne moo man daal li ma ciy lancé daal mooy lan fu defa tëdd def du ñaaw buñ la bàyyi waaw nañ la rey sax man président loolu laa koy ñaan na fi def loolu na fi saxal loolu ku rey nit ñu rey la waaw bu ko defee dëkk bi xanaa léegi mu changé wante tamit nga rey nit ñu dugal la ca kaso ba 3 mois 4 mois 1 an ñu génne la keneen defaat ko waaw. man daal li may lancé daal nañ ci taxaw daal ku rey nit daal ñu rey la ndax rey bi léegi senegal dafa bari torop torop torop dafa bari torop te ñu koy def tekkiwuñu dara jàpp ñi nga xam ne tekki nañ di leen di rey waaw. maman ñu ngi maa ngi leen di fay. tur bi ak sant bi. man lan nga ci ki nga xam ne moo génn àdduna di Pape Diaw. Eh, Pape Diaw moom ñu koy jaas Diaz man miinu ko bu baax na parce que man fi laa dëkkoon si côté baay bi nii su ma rombee yenn saa yi ma gis ko muy root ci pompe bi ma nuyoo dem. miinu ma ko bu baax mais baax euh, baax bi mu baax ñëpp pompe ba ci xale yi ndaw yi sax su ko boo seetloo xale yi rek a fi taxaw parce que da leen a manqué ndax xale moom xamul lu ki koy jëndal tàngal. génnee mu ngi foog xale yi mu leen a jëndal mu ngi kafam ñoom baax daal lañ xam si moom. bi bi ak par rapport seen cité bi insécurité bi mu am lan nga lan nga réagir. damaa tiit wallaahi damaa tiit parce que man fii dëkkoon ci côté bi juste nii mais après damaa duggaat ci biir cité bi euh, te dama doon xëy 6 heures du matin ndax ragal sama morom yëpp 4 heures la ñu xëy mais man 6 heures laa doon xëy sama borom kër bu fi nekkee daf may gunge wala sama doom bi te sama doom bi tamit magul mag yooyu mais bañ ma bëggee agressif yi laa arrêté dematuma. démb affaire problème bi euh, rey bi fee na ma fekk si clinique bi nekk fii cité bi damaa tiit ba jóg taxaw fu mu toll nii suñu waa ñu may woon nii gën nga téléphone bi ngi sonné mais tiitaange moo ma jàpp parce que nekkuñu ci sécurité daal nekkuñu sécurité suñuy doom yi nekkuñu ci sécurité fii yàqu na te pourtant yëmbal gi ñu baax fi dëkk fii ñu baax ñu correct ay liggéeykat ñoo fi dëkk mais ñaaw tee fi ñu fi def yëpp ay wàllu yaan lay doon ndax rey gi moom c'est la première fois ñu def ko dégg nañ fi agression dégg nañu fi sàcc lu nekk dégg nañ ko mais rey maa koy doog a dégg fii suñu koñ ñun daanaka depuis euh, deux euh, mille neuf cent quatre-vingt-seize lañ fi tox si jóge Pikine ñëw fii waaye maa ngi doog doog a dégg rey fii Jémbal gisuma ko gisuma ko ba ma ñëwee dama doon miir dem toog fee nit ñi démb li ñuy bëri yëpp damaa toog fii laa toog man xaw ma sax lu ma yëg damay dégg nit ñi di wax rek ma daw génn sama yaay ma foo jëm ma ne ko maa ngi ñëw daal di ñëw toog ndax tiitaange moo ma jàpp ndax nekkuñu sécurité suñuy doom yi nekkuñu sécurité fii lëndëm na lamp yi bëriwut suñuy doom yi ñu dañu leen defloo yoo xamante ni sax billaahi yow da ngay gis xale bu tuuti du am sax 10 ans ñu sexal ko morso ñoo xam ne dalay leer ñuy dëkk ñu nga wax ñu daggal a saagale gis nga fii ma toog nii ay 15 fii ma toog nii rek wallaahi mën naa bañ a nekk sax sécurité ndax dañ lay gis tey ne ah maire bi moo doon wax nangam naa ko def nangam boo jàllee sa fit bi du daal fii boo fi jàll nekkuñu daal ci sécurité pour te dire que nekkuñu ci sécurité waaw nekkuñu ci jàmm daal. mu ni ñuy def agression beeg ñooñu yéen a bokkandoo dëkk ci même cité bi. non man ñooñu xawuma leen mais dama ne fii am nañu ñaar ñi xamuma leen wax dëgg yàlla xamuma leen gisuma leen tamit mais daal dégg naa ne dugg nañ fii tëb rendi ko yaayam bu du woon yaayam sax xanaa dina fi yàgg ba yàq comme ni ko libaas waxee ni ñoom ñoo ñoo la may nettal mais man gisuma ko yëguma ko man damaa ragal ba ma demee orange money bi bay ñëw sax ambulance mu ngi gaari fële ndax ñàkk fem fu ñu dugg kër yi nga xamante ni seen borom buñ ko bëggatul nañ ko may am na ñu ko soxla wala ñu jaay ko wala ñu toj ko raser ko ñu xool luñ ko mën a def xale yi jàng si def ko ay daara mais tamit bàyyi nii kër yow nga dem tuxu feneen wacc ñi tamit ci ay tabax ak nit ñi di tux di fi dugg wala xale yi di sàcc di fi dugg wala ñu leen di jaayloo feeraay lu nekk nga fiy gis fii lu nekk nga fiy gis. nga xamante ne mooy solution pour jëlee ah solution mooy ñu jàppale ñu mairie ñu jàppale ñu jàppale ñëw di xam wàcc si terrain bi di xam li xew fii. mais boo fi gisee maire tey balaa wala benn côté rek daf ko intéressé lay dugg dañoo war a dugg si fii di wàcc si terrain bi di xool dimbali suñu njaboot yi da ngay yóbbu mu toll nii kuy xëy da ngay jàpp sa loxo doom yóbbu ko ba école te amoo jot soo jaajee yaa ngi wàcc sama doom heure bi wala heure bi war naa taali xaama dem taali sama doom war naa ko jëli xaama dem jëli ci ko lépp ci ñàkk sécurité nañ ñu jàppale nañ ñu jàppale fii yokk lamp yi leer su ñu suñu nee dimbale ci ci am ay ay gardien fii ci koñ yi ñu dimbale ñu parce que amoon na ay jamono amoon nañ ay gardien mais jamono bi tolloon na foo xam ne métti na xeetu métti boo xamante ni nit ñi lu ñu lekk lañ tax amu doo yor sa benn cinquante mille da ngay jënd caméra surveillance sa ceeb war la diwlin yàlla sa jàng école doom war la nga ne da ngay dem uti gardien te yeneen war la nga bëgg sa doom tamit doon quelqu'un ëllëg ah nga bëgg a jël sa benn cinquante bi di ko def foofu nañu dimbale nañu gestu yëmbal gi te xam ne yëmbal fu baax la ay nit ñu baax ñoo fi dëkk nit ñu set nit ñu am ambition ñoo fi dëkk dañuy xëy di liggéey ji ñu fiy def yenn yi nag dañ naan bien vrai que yëmbal Malia mais waa ville bi dañuy ñëw fii da ngay gis ñoo xam ne bu ne la ñii doomu diw la wala diw fe bërëb sàngam nañ dëkk doo ko gëm parce que lan doo leen foogee ñu ne yëmbal lañ dëkk fekk ñoom ñooy defkat yi mais du waa yëmbal waa yëmbal ay liggéeykat lañ ay daankat doole bëgg seen bopp ñoo fi nekk ñu set ñu civilisé nañu geesu fii xool banlieue bi xool surtout yëmbal nañu dugg si koñ yi di wàcc ci quartier yi Daaru Salaam sis lii fi am nii musu fee am mosu fee am wallaahi ah xanaa di ñaax yaay yi comme man rek ñu ngi koy téye seen doom yi man sama doom bu góor dem si guddi rek ci mujj yaay yow man mag laa am naa 18 ans damaa war a di génn mën ko doo génn fii li fi xew are baay bi ba ma fi dëkkee ñëw maa génn sama papa feebar ni minuit xale yu góor yi ñoom su ma demee defal ko mu lekk ba pare minuit damay dem kër ga xale yu góor yi ñoom bëgg ba sama kër ba ma dugg ba teg sama appartement ñuy doog a wàññeeku su ma xëyee damay demaat suñu kër mais ñàkk sécurité moo tax damaa dugg ba ci cité bi fii ci biir jege sama suñu waa kër moo tax ma duggaat ci biir ndax ñàkk sécurité bi nekk fii waaw ñun nag dinañ gën a téye suñu doom tiit nañ nag tiit nañ ba fu tiit yam fii ma toog nii sax damaa tiit wallaahi fii ma toog damaa tiit ndax fii li fi nekk neexuma la dama lay rey la neexuma la wala ma boolaak la moo fi nekk man nag teg nañ lépp ci loxo yàlla. waaw si ak ñoom dara da ngay yor lu ñu bëgg. fi ma dëkk fi ma leen ni falaa dëkkoon am na ko xam dafa yóbbu doomam jàpp si loxo doomam man maa ngi xëy ay 8 heures may génn taseeg moom ma ne lu xew fi ñëw dañ ko agressé. pompe à gaz dañ ko def bëccëgu ndarkaam 8 heures bu du woon kiy jaay soos ci tali bi noonu juste bu du woon kiy jaay soos te nangu nañ téléphone am dañuy nañu ko pompe gaz dem bay nangu tam li muy miiree noonu rek kiy jaay soos jóge foofu ne ko xam naa bàyyil ndeyu xale bi maa ngi jiitu bu saat bàyyil kii ne ko boo ko laa li nga xam mu daw dugg si ruq bi dem pour lan lépp ci ñàkk sécurité nañ ñu bàyyi ñu liggéey ñun ay jigéen lañ dañuy liggéey daan suñu doole maire bi nañu dimbali. fii police dafiy ñëw police dafiy dañoo xam heure gis nga démb ba fi policiers yi ñëwee taxawaalukat yu bëri dool fi gis koo xam ne kii da ko koo ragaloon pour aw fi dootoo ko doo ko gis parce que xam nañ ne tey police dafa police dafay wàcc si de mais ñoom dañoo jàpp ñaari waaw dañu fiy wàcc dañ fiy wàcc man sama doom fu mu toll nii bu 22h jotee ba 23h ki ma lay wax nii yenn saa moom may gunge dama naan ko du a génn gis nga bu watoo sax yenn watu yi mën ne ko dindi ko parce que da ngay gis da ngay ragal da ngay ragal tey jii police mën na ñëw ramasse ñi ñu war a ramasse duñu leen ramasse ñu ñu war a ramasse rek la ñuy ramasse nañ ñu jàppale dimbale ñu suñu njaboot yi tamit mënuñu leen jël di leen tënk mënuñu leen tëj ci kër yi ndax ay góor lañ